màggal fukki fan ak juróom-ñett ci safar bokk ci ay farataam moom soxna Moumy Kébé saa su màggal ñëwee mu def kéemtalaay kàttanam ba lépp lu nga xam ne Serigne Touba digaloon na ko ay taalibeem su bis bi ñëwaatee mu matal ko wàllum bernde ay ganam waaye it bàyyi xel gani ñi nga xam ne ñoom la dëkkandool fasaatu xayril xalqi abdat qasaayidi وكوني بيا عبدا خديما له سهر ربيت ربا لم يكن قط مثله بفضل الذي كوني حبيبا له استهر صلاة الذي لي خاد كوني خليله جنار خر نك بتي جلم وايد بونك بوبين خبنه مو جيتو لب نجم القرآن أكبر حسيده yéem naa ko ngir màggalam gi doon safar di defar mbooloo mi loo jëf ñu dal koy ful lu dul laa ngi màggal gi nag moo ko daa def lim ci digle da ñu jaamu yàlla ci sunna sun ndigal laa ngi sëriñ bi nag moom ci boppam daana toggi ñamam tàngal kafeem di bégal mbooloo mi yoon waa ngi sëriñ bi dëli na nee koo gis mu man ci bisam bii bis ba ñuy jaaxle dañ koy ñee texeem gaa ngi ay kilifa bawoo fu ne ñoo bokk moom jotaay bi suñ saali wax ne bu ñaar dendee kii fonk màggal gi ki ci des fonk ko ne ki koy fonk du deñ mukk di gis lu muy tiime ko ko dul fonk ba faw mu tegaat ci wax ne bu ñaar dendee kenn ki jëf ci màggal gi lu ci keneen jëful nee ci at mi munu fee jëfaat jaamu yàlla gum ko dabe looloo tax ñu daje fii ci kër soxna Mominatou Kébé moom euh, sunu baay El baabu kër Kébé moom Serigne Saliou tax ñuy gën a jox ko la mu doon ku baax doon ku dëgg doon am murit doon koo xam ne Sëñ Tuubaa fees dellu ci xolam ñuy ñaan ci barkeb Cheikhul Khadim mi nga xam ne moo wax ne lu waaye jëf ci bisam bi bu ëllëgee aljanna gennu jëm ay bis ak weer amu fa waaye nee bis bu dellu seeti mbég mi. ak cant gi kenn ku ne fa nga nekk sa ndab dana la fa fekk kon nag ñu ngi koy ñaanal ci barke Cheikhul Khadim li mu jëf ci màgg gi Sëñ Tuubaa defal ko ci lu kawe njortam. soxna Moominatu nag ku ne xam na ne moom dara ñoru ko lu dul màggalu lu Bamba gi a ah, mu muy mu kuy soxna Moominatu ñu ne doomi Alaaji Juga Kebe ah war naa mën a nekk taalibe ku ne xam na ne Alaaji Juga Baay mooy premier milliardaire en Afrique bi njëkk a takk ndomba raam. joxe àddiyey milliards ba noppi boole kook di jël liggéey di liggéey koo xam ne bu ñëwee ñu ne lampe milliard bi tim sing bamba sa baay njuga ñu ne autoroute bi sa baay njuga forage bi sa baay njuga kon soo màggee def lii nga def fan nga ko def kër gi nga xam ne alaaji Babacar Kebe moo ko fàqaloon boppam ba mu paree dañu soxna moominatu na ñëw léemu kër gi moo fi ñëw ak tànki boppam ya bintu bintu sëñ Bamba ñëw ñaan fii te ñu tuddale ko kon barke boobu xañ na moo la topp lu dul sëñ Bamba ñoru la ah li ngay def nag màggal gu ñu génn ñu dee na moo dàq gënu jëm a koy dàq ku lebal sëñ Bamba moom moo am pay ah ñu ngi lay ñaanal nag Kébé njuga yal na yàlla guddal sa fan. ajartu moom Kébé nag jëfam ci Touba gi gii xool di xool xool ji la di jila la nit ko xay ni lépp loo xay ni El Hadj Babacar Kébé yéene woon na ko ba ajartu ma la ñoom Sall yéene woon ko. ay it moom itam mi ngi ci mi ngi ci social yi mi ngi dimbali miskin yi ak jirim yi ak bàyyi yi lépp lu woote sëñ Tuubaa Mbàkke kenn du ko ci man mu nit koo xam ni sëñ Tuubaa lay waaji sëñ Tuubaa lay wàllee moom la bëgg moom la gëñ bañ ko ba sëñ Saliou Mbàkke ni ko kat soxna moom yow mi kat yaay sama doom ndax jëfam ak yéen a jum bàyyam yéene woon mu àggale ko ajjata maanaam ñe sall yéen a jum yéene woon ci lislaam bi mu àggale ko soxna moom xamul xamul ko bëgg xamul ko bañ sëñ Tuubaa rek ma ko ñor sëñ Tuubaa lay waaji sëñ Tuubaa lay wàllee sëñ Tuubaa moom gën lu maanaam ci ko suuf lépp lu mu am sëñ Tuubaa la koy def waaye loolu taxawaay soxna moom yi day bokk ci ñiy tuddee coalition mbokkoo sargal l'islam ndax soxna moom ni mu bokkee Touba alaaji Njuga Kebe jur ko mu jël léppam joxoon ko in qaadatil ujur wal masalihu bi tayyi wal jasbi wa inni salihu sëriñ Saliou Mbacke noonu boo demee Tiwaawan wàccuwaay boobu moom fa soxna moom Kebe am tey bu la yàlla indee gàmmu Tiwaawan nga gis soxna moom ak njabootu Seydi Hadji Malick da ngay xam ni nit ku baax la kuy

soxna Mati Jaxate euh, ak Serigne Saliou di jigéen ju baax joo xamante ni boo ne ko jàkk xam ne sëriñ bi am na lu mu def ci moom ci yar ak teggin ak muy nit ku yiw nag wax dëgg yàlla di ko bëgg lu baax di def social boo dikkee tey fekk nañ fi ñoo xamante ni wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk tànk yi nga fi dox si tànk yiw la yoo xamante bii soxna si moo la ko lebal nga ñëw fay si ko tey ci bis bi ndax soxna si amul bis bu ëpp bis bi. tey nag mi ngi ma fekk fii ci kër soxna Momy Kébé soxna Momy Kébé nekk soxna soo xamante ni ci saalihaat yi la bokk te yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa wax ni maanaam sukura naasa laa sukura laa ku santul nit doo sant yàlla. nag day jariñ nit ñi te du leen lor sama jarbaat bu ñu wax Cheikh Mbaye fii ci yoonu Touba Fall am néeg takk ci kaw waa këram ñaari xale yëpp yàlla dogal di ay parental faatu soxna Momy Kébé ba ko lay Bamba waxee. dana fan fan la foofu féete mu wax ko ko mu boole lay bàmba ak entrepreneur am ñu wëpp lu doon ciment ak feer ñoo fekk kër gën nan daan dafay ga meloon mu tabax kër ga ba mu yegg defal ko fa duus ak ay waañ nu ko daa daa di ko yëkkati nag dox ko dépasse boo xamante ni nag boo ba léegi te lay xéwloo moom ak njaboot ceeb bu bari ak diwlin bu bari ak saabu yu bari ak xaalis bu bari nag loolee nag bu fekkente ne soxna Momy kebe def na ko man c'est la première fois ma ñëw fii tey bu doon sagoom kenn du fi xiif bu doon sagoom kenn du fi mar bu doon sagoom itam Dakar benn nit du fa taxawaal boo la ñëw Touba te ñëwoo Touba soxna moom yi social njëkke ndax fekk ay néew di goole nga yërëm leen yàlla ak yeneen tubaab jëme Serigne Touba di ko def te yàlla tax yal nañu ko suñu borom fayal ci loolu doole ci moom bëggul dara dul yoon seen Touba yi soxna moom bëggul dara dul seen Saliou soxna moom bëggul dara dul lu baax boole ñu nag encadré ñu ci këram bii ci lu baax di ñu sagal di ñu suturaal di delloo ci suñu borom ay mag la ñook ay xale képp ku soxna moom mu nekkal yooyu yaa ko yoroon jukkal waaye moom ba dëgg yàlla jant ba kebe jugal li mu moom ba jukkal dañuy ñaan yàlla ak suñu borom subhanahu wa taala yàlla ñu dara taw yal na yàlla yàggal ko mu na ba njabootam bi di na xaar soo ko na moom xam nañu ko ci caaxaan soxna moom ci dëgg ak farlu ci yoonu sëñ Tuubaa yi rek lañ xamee soxna moom li ñu ko xamee ci def ak dindi ci lu baax di ay néew gi doole nee naa leen moom mooy bàjjenu njëriñ li ndax man mii di wax ak tey sama borom kër dafa nekkoon sa borom génn àddina bàyyi maa sama njaboot fukki at ak ñaar tey jooyu dara ñoo ngi sant yàlla bu tabaski jotee mi ngi joxe xari tabaski yi su weeru koor mi suukar yi su dem Tuubaa taxee mi ngi joxe kaar yi ñuy dugg di ñëw ñoom suñu njaboot yëpp ñu ngi ci kër gi di lekk di naan tëraay bi yaatu lool sax xebe ñu ñuy wax ci turu jànkat yëpp nag ndax soxna mu mi sëñ Tuubaa moo ko ñor ak xasaayit sëñ Touba ak waa kër borom Touba ak bisi sëriñ Touba yi tey jii nag ñu daje fii jàngkat boo xam ne yaa ngi ci yoonu murid wala boog ñu ci ëpp daje nañ fi ànd ak moom bis bi ndax li muy jëf ci sëriñ bi di ko jëf ci jàngkat yi xasida yi rek moo tax mu di ko def ak yàlla ak sëriñ Touba bisi sëriñ Touba bii la am te waa kër sëñ Touba yi la ci àndal ànd ceeg ay bokkam ay wëllëreem ay xameem waaye ànd ko jàngkoot di yu tedd yi muy jotaay bu am solo bu nga xam ni ñenn ci tàggkatu Serigne Salihou Mbacké yi duñu ko wutee Serigne Khadim Gueye sëriñ Mouhamed ñoom mag ñi ga saaka ñàkk nañ fu ñuy jëleeti waaje daan fa bi gëne ki tam tamal aduna yaa ka mën a ku ba xamo wolor lu fi taxaw nga kor saw melokan amul solo Seex Saaliw yetal nganu sa dem gi daal jaaxal nanu yaw la no xam nga dem banu fu jere ti xel mo dal Sëriñ Saaliw woo nu da xamal yàlla yonent ñuy bégal tarbiya moo nu ko defal ki ci amatul jëfam ji seere ko kullu muri seere na ko tijaan waa seere ko ku mel ni amatul sëriñ Saalihu Mbakke mu bi ñu fi des wallaay kon ñu dem mu des ndax dañoo moom kat bani fees ñu des suñu ku ñuy defal yaaram ki ñu seelay woo sëriñ bi nu jàlle jërëjëf sëriñ Saaliw ca yanam ba yaaram ki ñagal tànne fi yaram yaram ki bakkan yi jooy na bongi ku mala jërëjëf Serigne Saliou ca yaram ba yaram ki fi daa jël tooñi bàkkaar yi wéy na jërëjëf Serigne Saliou ca yaram ba waaye mu yir la lor yenn balaa yi nga gar yaaram xutbu dootu la tiim zaman jeex na leeru gi jërëjëf Serigne Saliou ca yaram ba yaaram ku ko weddi la laaj Saloum góor gi yor mbay jërëjëf Serigne Saliou ca yaram ba yaaram ñetti fan la fa cër ya far mu laa mu édition Magal 2020 fit ci kër Soxna Tutuba, andon